réforme du ñàkk réforme du du ñàkk mais réforme bu nekk fay fekk nga teg ko ci loo xam ne day am lu muy yokkal askan bi mën nga nekk président tu as tous les pouvoirs et tu délègues tous les pouvoirs presque tous les pouvoirs dans notre constitution il est prévu que premier ministre mën na am ay pouvoir même de nomination euh, xëy na demain il faut aller à une vice-présidence je ne pense pas que ñu war tout de go pour régler des problèmes ne dañuy def vice-présidence ak là je ne pense pas que mu doon loo xamante ni. mais yaa ngi envisager un poste faut... de vice-président. non je n'envisage pas je n'envisage pas. je dis une réforme elle doit être justifiée du ma def réforme parce que tout simplement bëgg naa régler problème mu may mën a kooku amul euh, du noonu la ñuy téye réew du noonu la ñuy téye ay institution réforme bu dee am da ngay xool yan jafe-jafe nga am man defe naa ni jafe-jafe bi nga xam ni am nañ ko ci sunu réew. il faut d'abord ci sama gis-gis découpler la fonction politique de la fonction d'État man defe naa ni am na décision bu assise yi jëloon en 2011 am euh, 2008 2008 mooy ku nekk ci ñun ci parti en général ngay sukkandiku ñi ëpp bokk su pour accéder au pouvoir euh, Macky Sall APR Abdoulaye Wade PDS mais je pense que Sénégal toll na foo xamante ni tey jii boo xasee ba yegg président de la République fonction exécutive c'est-à-dire liy doxal parti bés bu nekk la fonction exécutive kooku mën nañu ko jox keneen pourquoi parce qu'il faut protéger l'État davantage man loolu laa gëm. fonction exécutive bi mooy yow Amadou Ba boo nekkee président de la République. doo nekk président wu président sa coalition. non du ma nekk secrétaire général. secrétaire général mooy ki nga xam ni. Euh, alliance pour la république. ki nga xam ni ki nga xam ni moom mooy doxal parti bi quotidiennement au jour le jour. donc vous ne ferez pas président de la république et président de parti. non le président xam nga mën nga nekk même président d'honneur dama ne doo doo yor fonction bi nga xam ni. moom mooy doxal parti bi au quotidien maintenant kay doxal parti bi au quotidien mën naa nekk sa wet mën naa yor institution mën naa nekk premier ministre mën naa nekk ministre de d'état de quelque chose nekk ci biir gouvernement bi wala sax ministre sans portefeuille nga xam ni dafay gérer les intérêts du parti à l'intérieur du gouvernement parce que dafay toll foo xamante ni gouvernement dafa war a dépasser l'aspect partisan politique mun loolu laa gëm dama gëm ni gouvernement dafa war a dépasser cet aspect partisan et que réew mi fi mu toll il faut des consensus très forts yoo xam ne toujours ça doit dépasser le cadre de parti donc il faut que le président de la République qui est de voûte institution bi nga xam ne moom moo gën a ëpp doole ni nga koy waxee fi mu nekk nii gën a dëgër am mën a am sañ-sañu woo ñeneen ñi gis ñeneen ñi bu ko réew mi laajee naturellement ci parti am la war a sukkandiku boo amul majorité doo gouverner bu nekkee assemblée amoo fa majorité benn texte de loi du jàll donc dina am majorité mais li li nga xam ni war na ko mën a bàyyi moom mooy la fonction exécutive c'est-à-dire yaay convoqué secrétariat yaay euh, nommé nangam ci biir parti bi loolu il peut prendre du recul bàyyi parti bi keneen yor ko ci loolu je pense que il faut le faire dina bokk ci liy gën a dooleel démocratie gën a dëgëral état ci ci ci ci sunu réew parce que kooku jàppale nañ ko war a def